sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di gërëm bokki taalib yëpp di leen sant di gërëm ci liggéey bi nga xam ne yàlla def na muy liggéey sëriñ Touba suñu borom di def muy dox ba agsi ci loxoom bi mu agsee ci loxoom itam mu fës ko yéene ànd ak yéen ndax ni mu koy waxee rek lépp lu mu yéene boppam la leen yéene nee mu xamal leen ne leen bëgg na yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci liggéey bii ngeen gën a góor góorluwaat gën a fabuwaat gën a laxasaaywaat te xam nga am ngeen sasu rëy mooy lii ñu leen dénk te ki ne ci bopp ba di sëriñ Abdou Ahad Ka moom ñi nga xam ne yàlla def na mu woon fii te li ko fi tegoo nit ñëpp xam nañ ko bi yàlla def tànnee fii jub siwaat itam sëriñ Sidi moom dafa waxoon ne day diglu ndigalul Cheikh Mouhamadou Mountakha kon nag yéen ñi nekk ci biir liggéey bi na ngeen gën a góorgóorlu loolu la sëriñ bi wax neen na ngeen gën a góorgóorlu te yeesalaat seen laxasaay yeesalaat seen i positif te xam ne sas wu rëy ngeen am ndax takkiliif la waaye du tashriif responsabilité la waaye du daraja àdduna nag dafa yàqu lu lu lu lu lu yàgg rek seytaan dana ci jéem waaye mbiru Sëriñ Tuubaa seytaan mënu ci dara ndax ku ne ña ngi lay jéem a gisloo sa bopp te jéem a jox xalaat yu bokkut ak li sëriñ bi tëral te xam ne kat ñëpp dañoo laxasaay woon fekk Sëriñ Tuubaa bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne Sëriñ Tuubaa nee na Tuubaa ku fi sam xel indiwul saw xel dana def indi kon yooyu rekk fi ñëw ñi fi seenum xel indi ak ñi fi seenu xel indi waaye la sëriñ bi waxoon rek Cheikh Mamadou Mountakha taxaanee mi ngi koy fàttaliwaat ñëpp mooy ñi am taw féexi dëkk ci dëkk bi nañ xam ne ñoo am taw féexi dëkk ci dëkk bi di taw féexi ju leen suñu borom defal kon nag dëkk yi dëkk ak Sëriñ Tuubaa nag ñaanam na leen doy sëkk taw féex ak ndimbal buñ jéem a sàkku leneen loolu ngërëmu Sëriñ Tuubaa ndax jamono dafa yàqu li baax lépp dafa sotti bi mat li waaye li bon lépp dafa sotti bi mat yàlla defal ñu feex nag sëriñ tubaa rawale ci dëkk bi te waxooloon na boppam ne dox na ab diir àdduna sépp dana dana defuk daay takk ku ci bëgg mucc demal ci sama dëkk bi ci Touba mm-hmm. te li weesu lépp wane na ko lii fi mu jaxe mu wér di yee am bu yàggutu xam ngeen ni ci tawféex ji suñ ko am defal ak li coow li bari bari Touba daanaka yëguñ ne dara xew na fi dunduñ ko doxewuñ ko te ñëw leen dara kon xam ngeen ne Sëñ Touba am na lu mu beral waa ci bañ a fexe ba dafa bari yu jug ci àdduna di yàq te seen yàq sax mënta am njëriñ ndax yàlla suñ boom noppi na ci lépp ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa xam ngeen ne mooy yonent bi bi tax ñu bind ñëpp moo gën a tedd ci nit ñi waaye rasulullahi mooy yonent bi gën a kirite gi ci àdduna te ba fi ne lislaam mooy diine ji gën a màgg ci àdduna kon Sëriñ Tuubaa noonu rek la demee dama naan leen jërut tontonte jërut waxtaane jërut xalaat jërut jaxle ndax yoon wi ci noonu la judd ba mu jugee ba nëgëne ña fi ne woon bi ay colonialiste ak ña fi ne woon bokkoon ak sëriñ bi diine ji te fiiraange jàppoon leen ak ceddo yam yam ko seqaloon te yéenewuñ ko jàmm pexe yu sam xalaat yu sa xalaat yu sam xel dem jéem nañ ko waaye mënta jeexati ci mbirum Sëñ Tuubaa luñ gën a def mbirum Sëñ Tuubaa di gën a jëm kanam passif yi di gën a dëggu taalibe yi di gën a gëm mënta am jenn jeexati sëriñ bi ndax dañoo toll ci jamono yu xuriyatu taabir ku ne sañ wax sa xalaat waaye sañ wax sa xalaat googu dëgg la waaye tubaab yi ko indi ndax lislaam nanguwul loolu ëllësiina yoom noonu bil xëy bi yaa tënk sa bopp wax naa ko bu yàggul àjjana kenn mosu kenn mosu caatig sa bët te ñëpp dañ ko gëm sawara kenn mosu caatig sa bët da nga ko gëm kenn mosu caatig sa bët da nga kon yi yi ne demee yëpp bu dee ab yonente itam daa wàcc rek xëy wax le na suñ borom wax na nangam nga gëm ko kon nañ xam ne bu fekkente ne jamono dem na ba tubaab yi bëgg a dugalaat nit ci seeni xalaat ngir gëm gëmloo neen ne leen lépp loo xam ne dëppooroo sam xel da nga ko war a weddi kon loolu li ngay gëm dafa contradiction ndax mënoo gëm loo xam ne danga nga koo teg ci kumpa ba noppi gëmaat loo xam ne ci xel nga ko bëgg a teg diine dafa dëpp dëppoot ak xel inna diina mabniyun ala naqli la ala munasabati naqli moo tax Seydina Abubakar dafa waxoon ne at tafakkuru al ajzu fi l idraaki idraakum wal fikru fi zaatillahi istaakum saa soo demee ba xam ne yàlla kenn mënu koo xam boobaa xamale kenn gënut lu koo xam mm-hmm. waaye Sëriñ Tuubaa wax na ko ba tàyyi du duma ko ñu xam néew ma ci téere yi mm-hmm. kon ñun nañ dëgër te gëm Sëriñ Tuubaa te bañ a may bunt nag noonu Sëriñ Tuubaa yi ndax yaar dafa am ñii dañoo xamut di wax ñii dañ leen di ndax ñuy wax mm-hmm. ñii dañoo xamul di wax ñii dañ leen di nax ñuy wax mm-hmm. ki nga xam ne noonu Sëñ Tuubaa la di noonu yoon wi lu mu dégg ci yoon wi muy lu bon kooku bu bëggee ci say wax war ngaa xoolaat sa bopp mm-hmm. te li ci loolu la am na ci ñoo xam ne sag bi yàlla defal Sëñ Tuubaa ci biir dëkk Tuubaa neexu leen kàddu gi nga xam ne moo ne ci Tuubaa mooy génn kàddu neexu leen mm-hmm. lu ne danañ ko dégg nag bu sëriñ bi waxee bu sëriñ bi wax loo nit ñu ne sëñ bi wax ko bu sëriñ bi waxee boppam ci làmmiñam ñu ne sëñ bi kat ay nit fa dem wax loolu fa la fa loolu ñàkk positif la ndax bu sëñ bi waxee ci làmb ñoom nga ne sëñ bi dañ ko wax loo mooy la suñ borom waxoon yonent bi ci alxuraan ne ko bokk na ci nafiq yi seen i wax wa minhum allasina yuusuuna nabi aw yaquluuna huwa usnun yonent bi benn nopp la loolu mandarga naafiq la yaxdaru almunafiquuna nag an tunazala alayhim suratun tunabbihum fi ma tunabihum bi ma fi qulubihim suñ borom di wax ci alxuraan ne yi dañuy tiit lool aw ay wàcc woo xam ne day xibaar li li ñu doon xalaat kon loolu ñëpp ko war a wattandiku te xam ne sëriñ bi dëkk bi seex ko kenn moo ko ak njabootam fi ne njabootam gi fi nekk moo tax lépp lu mu yëkkati yërmaande ji mu am ci ñoom bëggul dara lal seen kaw bëggul dara metti ci ñoom waaye nag ay nit booy ànd ñoom it da ànd ak ñoom ci dëgg mm. li yées si àdduna nag mooy ku ñëpp ñetti ñëwul boppam te loolu gàllankoor la Cheikh Mouhamadou Mountakha nañuy xool ci moom buñ xool ci ñun ñii ndax ñun adduna mënuñoo jàpp adduna mënuñoo jett mënuñoo jum waaye moom mi fi nekk Sëriñ Tuubaa eh, wamaa yantiqu anil moo doon Sëriñ moo doon Rasulullah du waxe bakkan adduna yi tënku ne sama digg ak tubaab yi kenn doyuma ci sama digg ñoom ndax ku dul man mën nañ laa xëpp wala ñu xëpp la. man nag mëneesu ma xëpp mëneesu ko xëpp. moom mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa kenn mënta xalaat kenn wërta xalaat ne sëriñ bii kat nanga ma tax wala adduna tax muy wax li muy wax ndax lu ko tënk ci adduna amut ndax moom bu dee daraja moo ko ëpp ñëpp. te war a xool fi ñuy teg suñu tànk te bi Abdoul Ahad Mbacké waxoon na ne murit daa war a mel ne ëkk te bañ a mel war a bañ a mel ne xobu garab. waaye lii bëgg xew ci jamono fu ne nit dafa jóge mais dëkk bi amul kàddu wala amul baat loolu ñoom tali bëgg doon suñ bopp rek la ñuy nax nag ndax Sëñ Tuubaa kenn mënu ko nax Sëñ Tuubaa ba mu fi nekk nag ndax loolu yàgg na ci lislaam am na ñu ne woon ci jege yonente bi wuyu ma ne xawlakum min al arab munafiqun wa min ahli madinati kon loolu yàgg na fi kenn mënu ko duñ ci lislaam Sëñ Tuubaa bi mu nekkee njariñ ñëpp xam ngeen ne am na ñu fa newoon te nekkaloon fa seen bopp hmm. waaye ña fa aussi bàyyi woon ba na gën seeni sëji ñëpp ñi ñaan ndax léegi suñ tubaab defal kenn mënu ko dégg la ma waxoon maam Cheikh Ibrahima rek ci mujj gi ba mu demee ne ko Mbàkke ndax deseeti nañ fi dara fekk si bi di waxtaan nit sëñ bu àggale ko ba noppi ne ko Ibra Fall loo wax nga ne mu ko Mbàkke ndax deseeti nañ fi dara mu ne de la ma waxante woon yow ci Mbàkke jox ba na loolu dara doyul ci man sama mbir lépp ëllëg la lépp lu ngeen gis ci àdduna dafa ma ne nab luñ duy ba mu tuuru lay tuuru ca nab la loola mooy li ñuy di ci àdduna waaye la la la ci lépp ëllëg ko tax ju kon nañ bàyyi xel la suñ saar daa wax nee na suñ Tuubaa nee woon na na ci gàkkal ma ci yéen waaye nee na bokk ne ci yi ñu yàqale murid yi saa su sëñ bi dajale nit ñi ba wax buñ génnee lay njëkk wax mooy siñ bi li wax kenn mënu ko wala buñ ko mënoon lu ñu si wut si kon yii jamono di jaay mooy ay liberté ay démocratie yëpp ñun am na leen lu si démocratie ay xalaat la rek ndaxte boo xooloon Sénégal ñëwate ndax mën nañ ñeenti million yaakaar mën na ëpp na ko te Sénégal mën na fukki million nangam yu juróom yu kon la ci des lépp wëtte wuñu ana seen xalaat ñoom kon loolu formule la rek Touba nag bu fi ay junni junni junni di nekkee kàddu sëriñ bi ak bëgg-bëggam gënal leen seen xalaat ñu bëgg leen a jaay seen démocratie bi ne mooy démocratie bi dëpp ak jamono dañ leen nax kon fii yoon li yoon wi traversé jaar fu ne jamono Cheikh Mouhamadou Moustapha jamono Cheikh Mouhamadou Fadil ba si fii tey ci lu ne mu traversé ko saa su xëyee yoon wi di gën a màgg di gën a yàkkali loola nañ xam ne mooy suñu njiglaay leneen lu ñu def kat dañuy nax suñu bopp waaye du ñu jëm fenn te xam ne lii am Tuuba adduna sépp lu yéem képp ku fi dëkkul wala ku fi dëkk yéem na la ci àdduna sépp mooy modèle bi nga xam ne yoon murid noonu lay dunde mooy ni ñu laaje ak ni ñu koy investir ci dëkk bi ak ni leen sëñ bi gën la seen lépp loola nag am na ay ay ay force yu bari bari yoo xam ne jug na ngir bëgg jaxas xel nit ñi mënuñ ko nag ndax du am jeexit waaye nag war nañoo xam suñ bopp ñii wax ak nit ñii war nañ leen di wax dëgg te bañ leen a ndàkk ci liñ bëgg ndax jamono ji kenn nit ñi léegi dañoo xewal saa soo waxee boo waxee lu dëppoog seen bëgg ñu ne alhamdulilah rabbil alamin boo waxee lu dëppook lañ bëggut wax ja ñu ñu ñu ñu wëlbati wax ja loola nag jàpp naa ne la ciy musal ñëpp mooy ne suñu kilifee daa def mooy seet lay dëgg nga wax ko seet lay dëgg nga nekk ca bañ a seet lu neex nit bañ a seet lu naqal nit ndax loolu nit ñi kenn mënta fexe ba am lañ bëgg la daloon nitu yonente yàlla Moussa fii sa jaatumul xasanatu xaalu lana haasihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Moussa wa maa huwa loolu rek mooy li fi ne ba la nit ñi saa soo waxee luñ bëgg ñu sant boo waxee lu lu bokk sa liñ bëgg dégg nag ñu wax ja naqari leen kon nag la am solo mooy seetal la nga gëm nga di ko wax rek la ca histoire mooy ate te xam ne nit ñi kenn mënta jot seen gërëm ridan naasi xaayatun la tudd kon la Serigne Touba waxoon rek fa li ñuy tënk nopp la daa waxoon ne bu leen sonn ci sàkk ngërëmul mbindeef yi ndax kenn mënu ko am te ko ci sonnoon ba am koy du la jëriñ dara kon na ngeen fexe ba góorlu ci sàkku ngërëmu yàlla suñu borom bi leen bind bu ngeen ko sàkkoo ba am ko bu leen yàlla suñu borom gërëmee bindee fi dañ leen gërëm te